la force élimine la technique mais des fois la technique élimine la force te li qui leer mooy kii xam-xam bi ci moom mu jàng ko ci qui ci diggante ak pap normalement bu ci di sax ñun dañu yi si ci gox bi dëkk fi ngeen fi ngeen fi boo Boy Niang fi la juddoo yow fi nga juddoo ama kon li wóor leer mooy bu ngeen ñu fi fekkee sa baay def ba pare jox ma ma def ba pare jox leen kon kenn waru leen a ébranlé. mais ku ne xam damay sol blouson ñëw ci làmb ji taxaw de. kon boobu am na problème. dama lay wax de damay sol blouson ñëw taxaw ci digg làmb. ama bu taxawee damay daan sol blouson taxaw comme ni ma koy defee. yow mi defal naa la ko moom mi defal naa ko. parce que du ma ragal. ci bëre bëre rek kenn dox ma bëre ci Sénégal. kenn rek mooy sans patron muy Falaye Balde kon su ngeen ñëwee nii fekk ma sans biir kër néew ma sax da ngeen may agressé waaye tiitoon naa ndax yaakaar naa da ngeen may agressé ndax ndax ñu toll nii ñii ñii vraiment ñii moom wax dëgg yàlla man affaire yi moom da ngay da ngay waaru. soo amoon loo koy conseillé bés ba ndax ku ne xam ne adversaire am mbër muy taxaw xaar la donc donc donc donc donc donc ama à l'obligation de yëngal am la guerre se prépare en temps de paix te loolu def nañu ko te kuy dem di xeex war a génne say arme di ko wane euh, genre am na genre posé yoo xam ni gars yi dañoo gaaw te am na ci yoo xam ne dañ koy denc ci diggante kat du mat une minute ay seconde la yoo xam ni ci lañ koy liggéey kon bu fekkee ni bii loolu am na am na ci yoo xam ne dañu koy nëbb parce que li wërta leer mooy am na lu boo ñang wone am na lu ëma seen wane am na lu ama wane te kenn ku ci nekk na nga daan daane sax am ku ci daan adversaire daan ko benn façon bi nga ko daanee boo bañee ci bii ñu daane la ci bii ñii dañu am plan A ak B ak C.